Moustapha Mbeng, je suis le président de l'Union départementale des mutuelles de santé de Dakar et porte-parole du comité qui a été mis en place à Thiès à l'issue vraiment d'une large concertation de l'ensemble des présidents d'Union départementale des mutuelles de santé. Donc, qui ont eu à réfléchir aujourd'hui sur les enjeux et les défis qui interpellent la mutualité et en globalité la couverture maladie universelle dans le cadre de l'extension de cette couverture. Nous, nous, avons constaté que depuis un certain moment, par rapport à l'environnement, euh, donc euh, de la mutualité, il y avait beaucoup de défis, il y avait beaucoup de situations qui nous ont poussés à réfléchir ensemble pour trouver les solutions. Et nous sommes expérimentés. Et si vous avez vu quand même l'ensemble des participants, c'est de les représentants de toutes les régions. Donc il y a des questions sur les subventions, des questions sur la portabilité, des questions sur l'extension de la couverture maladie universelle qui nécessitait une réflexion, une contribution du mouvement mutualiste. Et nous avons réfléchi ensemble pour vraiment trouver les voies et moyens d'atteindre les objectifs que nous sommes assignés à travers cette importante politique publique, donc qui est immensément sociale et qui contribue à étendre la couverture au niveau national. C'est à ce euh, Euh, là, euh, ici à Thiès, pour réfléchir et trouver ces solutions-là. C'est vrai qu'il y a une situation qui est là, globale, à travers la Covid que nous vivons, et il y a un plan de résilience qui est là, mais surtout le plan de relance économique. Et vous savez très bien que parmi nos cibles, il y a le monde rural et le secteur informel. Nos cibles donc nous sont Donc en tant que structure euh, communautaire, nous avons pensé vraiment euh, nous regrouper ici, réfléchir sur, comme je vous l'ai dit, les subventions qui sont issues donc, de la prise en charge des bénéficiaires de la couverture malade universelle, comme les bénéficiaires de bourse familiale, de carte d'égalité, des, des chances, mais comme les bénéficiaires classiques, mais surtout réfléchir sur la portabilité et l'organisation de notre mouvement, parce qu'on avait également constaté peut-être une certaine léthargie, peut-être due à la, à la Covid. Et tout cela mis ensemble, nous a permis vraiment de revisiter même le partenariat avec les collectivités territoriales sur leur rôle et responsabilité et la, et la nécessité pour ces structures donc euh, de contribuer efficacement donc euh, à la mise en place de la couverture maladie universelle. Il y a, on a fait un large tour d'horizon, ce qui nous a permis vraiment d'arriver à des conclusions et d'ici peu de temps quand même nous allons vous faire part de tout cela. Non, l'INAMUSC, c'est nous, parce qu'aujourd'hui, dans cette réunion, l'ensemble de ces présidents de conseil d'administration d'union départementale comme d'union régionale, ils sont membres de l'INAMUSC. L'INAMUSC, c'est l'Union nationale des mutuelles de santé. Et la plus grande, les trois quarts sont, sont membres de, ce, de, de cette organisation. Toujours est-il que nous avons senti le besoin quand même de de donner un souffle à la mutualité à travers peut-être des perspectives de réorganiser notre mouvement et de le rendre beaucoup euh, peut-être conquérant. Vous savez, euh, nous sommes dans un champ communautaire et nous en charge un programme qui a l'ambition de prendre 80% des Sénégalais. Et notre mouvement a l'ambition vraiment d'être beaucoup plus, plus présent dans les institutions sociale, de pouvoir beaucoup plus faire le plaidoyer. Et nous avons même réfléchi sur euh, la recherche de ressources additionnelles en complément de, des ressources de l'État pour pouvoir euh, mieux améliorer le dispositif et revoir euh, donc, euh, certains paramètres donc, euh, qui nous semblent actuellement un peu dépassés peut-être. Oui, à temps opportun, nous allons en parler, mais on a quand même recensé quand même au niveau des départements que l'État doit beaucoup. Et je pense que cela contribue à être un gros d'étranglement dans l'essor des mutuelles de santé. On a fait le recensement, mais ce n'est pas exhaustif, donc on ne peut pas en parler comme ça. Mais il faut comprendre qu'il y a quand même un reliquat important de subventions que nous attendons. Et certainement, nous, avons, nous allons en discuter avec les autorités compétentes pour voir dans quel moyen apurer ce reliquat et aller euh, euh, vers euh, d'autres. Nous avons fini de renouveler toutes les mutuelles de santé sur le territoire national. Toutes les unions départementales ont été renouvelées. On a renouvelé les unions régionales. Je pense qu'il reste une ou deux unions régionales. Et donc, euh, voilà, il reste le mouvement national parce que la redevabilité, comme la reddition des comptes, comme le renouvellement des instances, ce sont des quand paramètres Euh, de, de la gestion qu'il faut gérer. Et je pense qu'on va très tôt nous y atteler pour aller vers un renouvellement de nos instances. C'est nous dans nous. Tout ce qu'on fera, c'est essayer de faire en sorte que le mouvement soit plus efficace et donc plus visible surtout parce que nous sommes un mouvement d'utilité publique et je pense qu'aujourd'hui il est, il est temps que l'UNAMISC joue pleinement son, son rôle à travers euh, l'engagement de tous ces présidents qui sont là, qui ont fait des milliers de kilomètres. Certains sont venus à 3 heures du matin, 4 heures du matin, d'autres très tôt le matin. Et donc nous sommes encore engagés auprès de l'État, auprès de l'Agence de la couverture maladie universelle pour donner notre, contribution à, à, ce programme. Et je rappelle souvent que nous sommes dans une posture d'intervention communautaire. Ce qui nous importe, c'est l'amélioration euh, des conditions de vie de nos populations à travers leur prise en charge. Sénégal doit aller très bien bientôt vers la protection sociale, surtout la mutualité sociale. Et donc, nous avons réfléchi sur tout cela. C'est pourquoi l'atelier de Thiès a été vraiment un grand succès en ce sens qu'on a su vraiment mobiliser l'ensemble des départements. Toutes les régions sont présentes et j'en profite pour remercier les responsables de Thiès qui nous ont accompagnés, qui nous ont accueillis et on leur dit vraiment un grand merci pour euh, cette opportunité à travers laquelle la mutualité s'est retrouvée au, à Thiès, un, un, un euh, une région de refus. Et nous pensons que cela va quand même euh, rebooster, euh, redynamiser la couverture maladie universelle. Mais le, le, le document finalisé donc sera transmis à qui de droit. Donc nous sommes en pleine réflexion, nous allons le parfaire. Hein. et en son temps les destinataires euh, après avoir partagé avec le mouvement parce que nous sommes dans une dynamique de démarche inclusive participative donc euh, les destinataires sont connus et ils auront ce document à temps. André Demba Wade président de l'union départementale de mutuelles de santé de Thiès. lu waraloon seen ndaje fii ci Thiès. waaw ndaje mi day union départementale yi ñoo daje yenn union yi ñëw xalaat bi jóge rek ci ñun dañoo am groupe WhatsApp. di ci waxtaan ci groupe whatsapp bi ba dem ba xalaat ñëw ni na ah war nañoo daje waxtaan ci situation wu affaire u euh, couverture maladie universelle ñun waar wi ñu ci amee ñu xalaat ci ci yenn fànn yi en tout cas pour seet nuñ ciy gën a mën a béyee suñu wàll ci waar wi ak li nga xam ne état jox nañ ko tey ci ñu mën cee gën a taxaw bu ñuy waxtaan tey parce ci contexte bi ñu nekk tey jii xam nga changé nañu ministère ministère développement communautaire moo yor affaire CMU euh, tey agence baa ngi fi ba tey léegi ci cadre boobu aussi ministère boobu laaj na ne day def évaluation laaj na ñun aussi ñu xool évaluation boobu nan lañ ci mën a taxawee am na yoo xam ne yii agence def na ko muy rapport def na ab njàngat ci mutuelle yi ñun aussi njàngat moomu agence def ñun nan lañ ko gisee lan lañ ci jëlee lan lañ ci mën a war a jëlee pour mën a joyanti suñu organisation mutualiste yi yooyu tey ji weccoo nañ ci li nga xam ne nekk na tey ci mutuelle yi lan moo ko waral ak nuñ ciy gën a taxawee mais surtout li ñu bëggoon mooy gën a renforcer suñuy engagement et confirmer ko président de la république ak ministre du développement communautaire ak gouvernement bi yëpp suñu taxawaay ci wàllu développement couverture maladie universelle ba fexe ñi nga xam ne ñu ngi ci secteur informel mooy baykat bi sàmm bi mooy ki nga xam ne mu ngi yëngatu ci commerce ak yooyu ni ñun engagé wu nañu pour ñooñu ñëpp fii ak ay at ñu mën a am couverture maladie ni ko président bëggee ñun dañu bëggoon affirmer président ni ñun ñu ngi ci waar woowu naam am nañ ci ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yooyu buñ ko fajtalee dina tax ba ñun li ñu bëgg a béy ci wàllu séem dina mën a sotti te sénégalais yëpp dinañu retrouver yaakaar gaa ngi fi xam-xam gaa ngi fi manin waa ngi fi am lu ñu gàllankoor nag li ñu gàllankoor la ñu ni buñ ko càmbaree xool ko ci suñu biir xool ko mu jóge feneen itam nan lañ ciy taxawee ba mën koo résoudre en tout cas parce que ku wax Covid wax feebar wax faju te ci wàll woowu defe naa ni àdduna si yëpp da doon wax naan nit ñi dematuñu faju ñun mutuelle li ñu constaté mooy ñun ñi faju ci ñun dafa ëpp ci période Covid bi kon mu wone taxawaayu mutuelle ci wàllu protection sociale maanaam kiiraayu nit loolu jàng nañ ko gis nañ dépense yi ñu ci def itam malgré suñuy maigre moyen def nañ ci ay dépense yu am solo jël ci nit ñi ci en charge te def naa ne liñ ci dépensé mosuñu ko woon dépassé ci at yi passé kon ñu nekk système boo xam ne bi nit mën na compter ci moom pour taxawu ci wàllu bu lu mel ni lii mbas amee wala leneen bu amee mutuelle de santé yi am nañ ci solo trop trop trop ci taxawaay mm. résilience boobu def naa ne mutuelle yi taxaw nañ ci bay nañ ci seen waar wone nañu seen capacité itam mm. malgré jafe-jafe yeneen yi ñu am yëpp nga am tey suñu subvention yi bu ñëwoon yëpp tey jii kenn waxatul ak yeneen ak yeneen. kon yi dafa ñëw am na ñëw. bon am nañu retard comme ni ko Moustapha waxee am nañ ci ay retard ñu ngi jéem a xayma nan la toll. ban gàllankoor la andi ci suñu liggéey yooyu yëpp defe naa ne jot nañ cee waxtaan pour euh, xool yooyu nan la ñuy def ba saafara ko ak kan ci kan la ñu war a jublu pour waxtaanee lu mel noonu ak nan la ñuy defee ba vraiment CMU bi ñu indi ci suñu xalaat ci nan lañ koy joyantee ba dimbali ko ci kanam mu méngoo ak li président de la république gouvernement bëgg aussi. Mm. ci wàllu yeesal département yeeg région yi fuñ ci toll. ñoom ñëpp yeesal nañu département yi yeesal nañu. région yeesal nañu ba mu des benn wala ñaari région ñoom ñëpp yeesal nañu fii mu nekk voilà yooyu ci mouvement bi léegi au niveau union nationale UNAMISC moom la ñu war a yeesal bu ñu jógee ci UNAMISC dem ci fédération nationale des mutuelles de santé te yaakaar nañ ni ñoolu bola at mii di jeex yooyu yëpp dinañ ci taxaw ba mu sotti parce que tey euh, structure yi fi nekk tey jii am na changement yu amoon depuis 2015 2016 structure yooyu reflété wuñu li fi nekkoon ak euh, jamono jooju. Mm-hmm. waaw am nañu plan de suivi réunion tey jii xool bu ñu paree dinañ ko tënk xool ku ca nekk moo xam président de la république moo ministre du développement communautaire moo xam agence moo xam fédération moo xam UNAMIS moo xam fajkat yi ñoom ñëpp am na point buñ lay adressé. bu boobaa ñu tënk ko ku ca nekk itam ñu adressé le point boobu mais di gën a surtout def tuuti bilan ci ñun suñu liggéey liggéeyu union yi parce que ma rappelé ni bu ñu waxee union départementale c'est parce que dafa am charge bu mag a mag responsabilité bu mag a mag bu ñu teg union départementale moom moo yor paquet bi moo mag mutuelle yi ñoo yor paj mi donc ñooñu am na loo xam ne lii lu lu ndaw lu dal programme bi daf lay day impacté ci ñoom loolu moo andi justifier suñu rencontre ñun union yi ginnaaw am nañ ci waar woo xam ne ñun ñoo ko yor ñun ñoo xam ni mu mel li muy saf ñun ñoo ko xam kon ñun bu ñu dajee waxtaan ci def naa suñu waxtaan dina mun a jur lu bëree bëri bëri bu paree nag ñu séddoo koog ñu ñu féete kaw suñu suñu organisation faîtière muy UNAMIS ba fédération après c'est aussi seet nan la ñuy def ba autorité yi jot ci. paj mi moom war nañ cee liggéey lu bëree bëri jafe-jafe yi ñu ci am aussi ñu waxtaanee ko ba ministère de la santé. mun a waxtaan ak moom pour contribution bu prestataires yi autorités médicales yi vraiment ñu accentuer ko ci fànn googu parce que soxla nañu collaboration bi ak ñoom ñu gën ko rataxal ba ñu xam ne objectif bi ñu amee objectif état la du objectif ko mutuel couverture maladie ku koy wax ñu bëre dañuy faral di wax ni CSU couverture sanitaire universelle ñun benn pàcc bi lañ ci jël kon bu ñu jëlee pàcc bi fajkat yi jëleel beneen pàcc dañoo ànd weccoo pour taxaw loo xam ne lii day jëmale mbir mi kanam.